daanaka ñu ngi fépp ci miim réew waaye liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def ñu bëri xamuñu lan moo di solo si ñi ay bàjjenu gox lañu leen di woo mu nekk ay jigéen yi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllum volontariat ngir rekk mën a dimbale seeni moroom jigéen yi nga xamante ne dañoo toll ci diggante waaye dëgg-dëgg ana lan moo di seen rôle loolu mooy laaj bu ñu sàmm. suñu rôle nag boo ko xamee mooy sensibiliser d'abord dañ orienter. danañ danañ suivre xale yi de la naissance ba am quinze ans des fois de plus sax buñ ne koñ bi xale bu feebar yow yaa yóbbu du hôpital. mille premier mille premier jour yi xale bi am gunge leen ak seen yaay fi ndaw si nekkee en état ñu koy gunge di ko gunge ba yàlla def ma mucc mu muccee ñuy gunge xale bi keroog muy am cinq ans si loolu la ñuy yëngu boo gisee ñu ne bu nekkee en état gis ku nekk en day làqatu du nangoo dem defi visite léegi bu fa defee bàjjenu gox bi en tant que bàjjenu gox bu fekkee am nañ ci seetlu wala ak dégg-dégg ñu dem waxtaan ak moom ndànk orienté ko mu dem poste de santé ba def visite am am carnet mën a def ay analyse am. nga gis jigéen boo xamante ne tey mu ngi biir këram te mu ngi wënn lor du yëngatu di dem seeti si hôpitaux yi pour ñu xool yaramam ci lan la ne dina toog maanaam. dem ba ay ay cinq mois maanaam sax du fa jaar euh, am ñoo xamante ne si loolu lañuy taxawee sax bu wasin jotee sax ñu def ko seen biir néeg waaye tey bàjjen gox yi dañoo génnee loolu yëpp si biti tey jii bu ñu nekk ak yow boo déggee ñu ne bàjjeni gox toujours suñu xel gox bi nga nekk sa buta nga fa sa noppa nga fa ngay xool tey boo wanee doon nga toog bàjjen bi dina ñëw jéem a waxtaan ak yow yow nag na nga def yaa ngi si jàmm. yoonu gox de dafa nekk rek ku di dimbale askan bi jàppale askan bi ku xamul ñu xamal la ku feebar te mënoo dem wala xamoo foo jaar ñu jël la yóbbu te poste sant bi ku ci am problème ak sa borom kër boo ñëwee dis ñu ko ndànk ñu daal di dem waxtaan ak sa borom kër waxtaan delloo si leen ba ngeen delloo si waaw ku ci am sa problème itam boo ñëwee boo ñu ko diisee. ah lu ñu am dana la ko dimbale jox la. naka noone gannaaw liggéey boobu nga xamante ne ñu ngi koy def ci gox yi ak goxaan yi ngir mën a dimbale système de santé fii ci Sénégal bàjjenu gox yi am nañu taxawaay bu am solo ci wàllu règlement de conflit yi ci biir quartier yi ak ci kër yi. Eh, léegi ku ci am sa problème bàjjenu am nga bàjjenu gox si koñ bi bu ko defee ñu ndànk la ñuy ñëw ak sutura ñun tam dañu am sutura boo xam ne bii. ku ci am sa problème boo ñu ko waxee yow yaay dem di ko nettali war waaye ñun duñ ko wax ndax formation bi ñu defal loolu lañu ñu formaté. si biir quartier yi dañ si jox yeneen fonction ndax da ngay gis ay coow am si kër ñu ne woo leen bàjjenu gox bi bu ñëwee xëy na yàlla am na lu ñu si may ñu waxtaan tànk jàmm ñëw xale réer ñu ne woo leen bàjjenu gox bi ñun dañu am sunuy groupe groupe bi bu ko lancé si biir kële lancé bi ba mu yegg si sunu bureau comi comi département bi bu Pikin bi su ko defee si yàlla daf ñuy dimbali si saa si eh, xale bi feeñ. des fois de dañoo suñu wax la problème intérieur problème famille yaa koy réglé bàjji ndox daal loo xew ci koñ bi dafa war a dafa war a participer lu fi am dafa war a dem participer suñ ko yëgalee suñ ko bu déggee lu xew ci koñ bi dafa war a jóg dem fa ñu daal d'abord loolu moo doon moo doon suñu moo doon suñu fonction ci lañ doon ndax avant. abant lii di am ba lii am fekkaan mu jub kon nag dañoo gën a dañuy gën a renforcer waat. parce que heure bu ne dañ lay soxla léeg dañuy toog ba guddi am mu am mel ni comme euh, diggante jëkkër ak jabar am problème ñu woo ñu téléphone lii de am na kër diw lii ak lii ak ba mais bàjjen yi da ngeen war a jóg da ngeen war a jóg ngeen waslu ak bu ko defee yow mun nga jóg ci guddi gi bàyyi fa sa borom kër nga dem xamoo ban heure ngay ñu jàpp ni jigéen le yi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu développement dañoo engagé wu ci mission bi ñuy def te xaaruñu ci benn dërëm. waaw parce que ay volontaire man de sama fii moom wax dëgg yàlla dama fee nekkoon dama fa avant may nekk bàjjan parce que bàjjan lan ma def parce que ku fi feebar man maa jël yóbbu hôpital ku fi am problème même boo amee sa taab sax dañuy wax demal si yaabu géey mu xoolal la ko mu na la ko bësal la ko. bi ñu bi ñu jël pour ñu nekk bàjjen dañuy wax volontaire volontariat la ñuy liggéeyee kon nag ñun suñu amee motivation baax suñu motivation dañuy liggéey ngir yàlla ñun yàlla lañ ñaa yaakaar bu fay ñu luñ ci fekk ne xam ne fa la ñu fekk. nag dañuy sant yàlla ndax ba ñuy woo dañuy formé bàjjen bi wax ba ñu ne volontaire la te volontaire jaamu yàlla la. bu ñu demee ba si biir jafe-jafe delloo suñu xel si yàlla ne fay yàlla nañ si nekk rek ñu amaat courage ànd ak suñuy délégué de quartier sunu délégué yi délégué de quartier yi bàyyiwuñ ñu ndax bu ñu dawee song am jafe-jafe ñu song leen ñoom dañuy jóg ànd ak ñun taxaw ñu ndax des fois dañuy am jafe-jafe yu taa ndax da ngay tase ak famille boo xam ne dafa doy waar dañ lay attaqué wax la sax lu la war a wax war la dépassé nga xam ne kii tey jii bu doon sama njaboot duñ ma ko wax waaye nag nga delloo si sa xel rek. xam ne dangay liggéey te yàlla tax. parce que liggéey bi yombut léeg nga dem nga am loo xamante ne mais man temps yi rek am naa support bu rem boo xamante ne ki taxaw ne def may rey mais dañ ko jàpp fu mu ne nii ñu ngi ko defee rek te loolu yëpp si liggéey bàjjen ba parce que ba mu toogee di dóor yaayam dóor yu métti dañoo daw si wutali fii dama bàjjen laal yéen a ngi toog diw kat mu ngi rey yaayam. ba may yegg dama fekk da da koo dóor bi di ko weq ba gaañ ko. comme niñ ko baaxoo di gis ci mission bu nekk am na ay jafe-jafe moo tax it ñiile bàjjen gox di ñu xamal yeneen jafe-jafe yi ñu jànkoonteel. bu ñu gisee taalibe boo xamante ne dafa sonn dañ lay topp bi sa daara waxtaan ak ñoom looloo tax boo xoolee bàjjen gox boo gis rek ndey daara la. Euh, dinañ dem si daara ji jéem a waxtaan ak euh, seen sëriñ yi fa nekk bu ñu xoolee même taalibe boobu moom la buñ leen buñ leen gisee nii léeg ñuy taxawaalu dañ leen di yëkkati yóbbu leen kër bàjjen gox léeg nga yore fi ñaari taalibe ñett dañ ñu woo signéloo ñu bàjjenu gox dañ ñuy signéloo kan kenn new ñu dañ leen di embauché kenn new da ngeen di am salaire dañu ne dañ leen di influence tànn def leen na gox ngeen liggéeyal seen commune si biir volontariat boobu nag duñ ne boobu ba léegi am ñu si dara ndax dañuy tase ak ay ONG ONG bi mu ñëwee day signé ak ñun contrat liggéey bi lii laa soxla si sama liggéey mais liggéey bi su ma ko liggéey su ngeen ko liggéey lii nañ leen rek ni ñoo ngi liggéey amul ONG liggéey nañ fi ak ñoom Medicos plan international SOS bëri na yoo xam ne dañuy liggéey ak waa région médicale yëpp foog ñu am lu ñu teg suñu loxo dañu liggéey bi paquet liggéey bi lii la dañuy jouer rôle de régularité ci gox yi dañuy dem dañuy des fois ay femmes yoo xam dañu am problème day ñëw soumettre la ko euh, problème conjugal da ngay dem assister euh, euh, orienter leen bañ ba ñu normal toujours da nga da nga dañuy dañuy fekk ñoo xam dañu am problème conflit entre entre mari et femme dañ lay woo nga dem da nga ci dox ba mu ba mu ba mu antu des fois dañ xale bu jubul yaa am ñëw soumettre la ko wala des fois ñu def agression à domicile. dóor seet doom ak yooyu dañ ne bu ñu bu ñu habitude yow yaay dem yooyu yaay dem réglé ko ba affaire boobu am toujours ba tout dernier maar am na ko xam doon dóor doom ba tëkk ci néegam bi ñu ma woowee ba ma demee tout face ak euh, suñu chef de quartier Toumane bi ma bañ ma bañ ma sollicité dama dem réglé ko ba léegi déjà dina dootu ko defati dara. am na jafe am na jafe-jafe ndax léeg nga am nit am pro nit am problème bàjjenu gox yi dem fa dañuy jànni. dañuy wax waane dañoo kii lu ne la ñuy dégg daal. depuis presque ay at yu bëri ñenn ci bàjjeen gox yooyu ñu ngi yëngu ci mission biile te amuñu ci ay avantages du ci tamit ay frais de déplacement naka noone looloo taxoon ba njiitu réew Macky Sall di leen dalal ci fan yu ñu génnoon foofe ci palais de la république xamal leen ni am na liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci mim réew ba tax na mu yokkal leen seeni ndàmpaay ba fukki junni weer bu nekk. la Badiane Gox a donc pour vocation d'encadrer la femme dans les phases essentielles de sa vie reproductive. Et je voudrais reconnaître ici votre engagement citoyen et vous remercier vivement pour votre contribution pour le bien-être de la communauté. Jërëjëf Badiane. Mais j'ai décidé de porter cette motivation à 50 000 francs par mois. et par Badjen. man sant yàlla dañu doon santaat yàlla di sant président de la république parce que initiative mu bi bu baax la ndax euh, nit di liggéey nga ne ko jaaraama rek dafa baax ndax olof Ndiaye ne waa góor du yokk du du yokk xaalis mais dana yokk ngóore. dana tax nga gën a góorgóorlu kon nag lim dafa ñoo ñaaxaat pour ñu gën a liggéey daanañ liggéey naam mais léegi dafa ñoo gën a ñaaxaat ku ci liggéeyul da nga da nga liggéey ku liggéeyul da gën a renforcer waat ñoo koy sant nag di ko sant baax ndax de alali jàmbur loo ci am sant ko ko te lii mu def nag motivation bi bare na ci ñun dem nañ ba naan est-ce que commune bu nekk sax maire bi du jox bàjjenu gox yu fa dem mais ñuy xalaat xalaat jëloon nañu koy di bu tamit taxaw neen léegi moom dina jox bàjjenu gox bu nekk cinquante mille par mois loolu ndax gis na suñu liggéey si terrain bi loolu yi dañ ko si gërëm di ko si sant di si gërëm ministre de la santé Marie Khemesse ndax si loxoom la amee ak di si gërëm suñu président nationale di Ndeye Fatou Touré. macha allah bañ ko déggee bàjjen yëpp dañoo kontaan kontaan nañu di ñaan yàlla rek mu egg seeg jàmm te mu jig ñu wax dëgg yàlla am kontaan nañ ci président lim lim ñu defal wax dëgg yàlla am kontaan nañ ci te séentu woon nañ ko tam dañu séentu woon a yàgg yàgg. suñu lii ñuy def sans salaire sans dara yàgg yàgg yàlla dañu ci fekk si yàlla na fekk suñu bool nañu président président recevoir ñu dégg nga wax ñu wax ñu wax bu baax wax ñu wax bu neex. xoolal ñaata at ñu nekk si bàjjen gox bi di liggéey te yow amoo si salaire amoo si dara kon nag ñun dañu ne buñ si amul am nañ si yàlla. kon nag bu ñu demee ba tey ba yegg si si si si si si si heure bi di doog a jot loolu it dañ siy kontaan. waaye yemuñu ci la ñu yit it ci njiitu réew mi moo di taxawaay boobu nga xamante ne taxaw na ko si ñoom mu yaatal ko dimbale it ay relais communautaires yi yi nga xamante ne léeg ñoom ñoo leen di dimbale ci liggéey bi. ñu ñaan tam président mu gestu tamit relais yi ndax suñuy doom lañu suñuy jabaat lañu te ay jeunes lañu te taxaw ñu fenn te fu ñu gestu nag fu bàjjen taxaw rek relais taxaw na fa. ndax dina am yenn uh, kii yoo xam ne sax day metti nga ànd ak bàjjen relais bi da la naan bàjjen toogal ma ma yegg si au fond ñu dem wala ñuy dem di vacciner ay étage gudd nga dégg relais yi ne bàjjen toog leen ñu ñuy yegg si kaw ñu leen di gërëm nag di gërëm yi nag di leen sant di leen ñaanal ñoom yàlla na nañu yàlla yàlla may leen lu ëpp li ndax ñoom ay xale lañu ay ndaw lañu te dafa am lu nekk seen kanam. ah xanaa di leen ñaanal rek di ñaan njiitu réew mi rek li mu defal bàjjen yi mu defar ko relais yi parce que ñoom ay ndaw lañ ndaw yoo xam ne dañoo nangoo volonté ay ndaw lañu li mu ñu defal nii ne dañoo ñaan yàlla rek président moom itam xool relais yi li war si ñoom mu defal mu defal leen ko waaw parce que relais yi itam wax dëgg am sonn nañ mais relais yi itam sonn nañ. fii ci Sénégal bàjjenu gox yi seeni lim mi ngi toll ci 9138 bàjjenu gox yi nga xamante ne ñu ngi leen di xayma ci mim réew te ñi nag seeni mission moo di renforcer système de santé bi fii ci Sénégal dimbale jigéen yi nga xamante ne dañoo wann lor accompagner leen ci seeni wàllum processus de santé waaye yi participer ci développement communautaire yi ci gox bu nekk